faslun li ab dog la fil xaydi ci mbërëg mbërëg mbaa reegal dafa bari ay àtte ci lislaam moo tax ñu koy jàngale day wane ne reegal mbaa nga ne mbërëg ñetti façon yu bokkul la benn muy deret dëgg dëgg te moo ca cosaan moo ci gën a bari mën naa nekk nag lu puur mel ne dëtti wànjar ju puur ba tey mën naa nekk lu tikk mel ne raxasitum yàpp tam génne itam nag ca sawkaayu jigéen ja bu génne woon feneen du tudd mbërëk na génn ca sawkaayu jigéen ja tayit génnal boppam nga xam ne am doom waralu ko góor joteeg moom waralu ko gaañu waralu ko jàngoro waralu ko lu ko yàlla pindil rek bu tolloo ci di ko am daal di ko am fa mu toll di ko am nag mooy bu jegee kàllafe ba ba muy am juróom fukki at jigéen ju toll foofu rek mën naa am bu ci aada lay génn ci moom nag te demee ni ñu wax mbërëg la mbaa nga ne régal la bu fekkoon nag jegewuta kàllafe moom jigéen ji ni ki juróom-ñeenti at rek la amagun wala mu àgg ci juróom-ñaar fukki at lay génn kon ci ay jamono dañ koy laaj jigéen ñi nga xam ne ñoo xam ñu wax ba xam ndax mbërëg la wala du mbërëg daa wax ne gën jaa néewi mbërëg mooy lu ne soteet benn yoon daal di jeex bu dee ci wàllu jaamu yàlla bu dee ci wàllu jaamu yàlla moom bu dara jëlee woon soteet daal di jeex it ñu jàpp ne mbërëg la nga xam ne faaw mu war a sangu farata te bu fekkee ci koor la nekkoon koor ga yàqu na faaw da koy fay bu doon nag ci wàllu lu ñuy wax idda maanaam jigéen war a jàpp idda wala ñu koy laablu nag moom faaw ba mu génnee mu yàgg lu toll ni bis mbaa mu sori ci bis ñu door ne mbërëg la ba mën a àtte laab ga ca topp di ko ñëwaale ci laab yee ñi wàññi gaa njëkk a takk ne jigéen di gis baax faaw mi kenn ci yett yi koo xam ne tey tey la ko njëkk a gis ak koo xam ne gis na ko gisati ko ak koo xam ne daa ëmb ba noppi gis ko li ci ëpp ko moom du ko gis waaye nag bu ëmbee ba noppi gis ko am na àtte dafa njëkk wax ki nga xam ne tey tey la ko mas a gis yoon boobu moom ni ñu ko waxee woon mën na ne soteet daal di jeex waaye itam mën naa ami fan ba àgg ci genn wàllu weer muy fukki fan ak juróom fukki fan ak juróom moom lu yàgg yàgg du ko weesu su ko amee te jeexu dañuy jàpp ne jàngoro la daal koy digal mu sangu kay jullee kay woor ak a jotee ko muy séen bu leen soobee gën jaa néewi laabit mooy fukki fan ak juróom maanaam jigéen tey bu gisoon baax yoon topp ko ba ne ko sa deret jeex na lu néew néew dana ca tegaat ñaari ay bis genn wàllu weer door a gisaat baax ndax diggante bu fi gisaatee baax nga xam ne mu tut fukki fan ak juróom dañuy jàpp ne kon dereti jàngoro la kenn du ko àtte àtte regal gën jaa yàggi laab moom yàllaa ko xam waaye nag mën nañoo wax moom gën jaa néewi laab ne mooy fukki fan ak juróom dafa jaari si ci koo xam ne gis na ko gisati ko kooku day seet ba xam bu ko masaa gis ñaata fan lay am deret di jeex mu jàpp rek loola ndegam yoon yi mu ko gis yëpp na fan ya toll benn la ëppantewut ni ki moom yi mu ko gis yëpp ñetti fan lay am mu jeex kon saa yu ko gisee rek na jàpp aadaam ñetti fan ba xam dana jeexam di jeex soo amee ñetti fan tam jeex loola leer na boo amee ñetti fan ci deret day génn nag mu yokkaat ca ñeneen ñetti fan ngir wóorlu su ko defee nag muy juróom benn ci fekkee ñetti fan ci taxul mu jeex nag mu jàpp ne jàngoro la amee daal di sangu ay jullee ko woor aka joteeg borom këram bu leen soobee bu dee nag koo xam ne yoon yi mu gis baax dañoo wute am na ci yoon yoo xam ne ñetti fan laa am jeex am ci yoo xam ne ñeenti fan am ci yoo xam ne juróomi fan kon day seet ba ci ëpp muy juróom su gisatee deret jàpp juróom ba xam amee juróom nag te deret di jeexut mu yokk ca ñetti fan muy juróom ñetti fan su ci yokkee ñetti yooyu te taxul nag deret di jeex mu jàpp ne jàngoro la daal di sangu te jullee ko woor waaye nag bu fekkee dafa aadawoo di am fukki fan juróom deret di joor a jeex kon su amee fukki fan juróom te jeexut it du ci yokk benn benn fan foofu rek la yem daal jàpp ne lii génn jàngoro la su fekkoon ne te daa am fukki fan ak ñeent mu door a jeex tey nag mu am ko te jeexut benn fan dong la ca yokk su fekkee dara am fukki fan ak ñett mu jeex tey nag mu am ko te jeexut ñaar rek lay yokk xam ne kon moom duñ ko weesali mukk fukki fan ak juróom niñ ko waxee woon li ci ëpp ku ëmb du gis baax waaye nag bu ëmbee ba noppi gis ko dañuy teqale yan jamono la ko gis su fekkee ne ba mu amee yetti weer la ba ba muy àgg ci juróom-benneelu weer wa diggante boobu fu gisee deret moom mi ëmb mën naa doon fukki fan ak juróom ba ci ñaar fukk waaye lu yàgg yàgg moom du ëpp ñaar fukk su duggee nag weeru juróom benneel ba ba muy am doom saa yu fi gisee deret mën naa am ñaar fukki fan ba ci fanweeri fan waaye mënta weesu nag fanweeri fan mu des nag bu door a tàmbali ëmb ba ba muy am yaari weer jëm ci yett dañ caa wute waaye wax jëkk na wóor mooy day topp rek nam daan gise baax bu mu ëmbutoon mooy topp rek aadaam nu mu toll rek bu ko amee te deret ji jeex baax na bu fekkee ne jeexut mu yokk ci ñetti fan bu ci yokkee ñetti fan te taxul deret ji jeex nag mu jàpp ne jàngoro la boo xam ne ni ko deret ji dikkale dañu def bis bu ne mu ñëw day ñëw tey bu ëllëgee mu génnal day wàññi rek kon fan yi nga xam ne ci la ko deret ji dikkal te bañ a wañuwaale fan yi nga xam ne bu ko ca dikkal bu waññee nag fan yooyee ba mu toll nañ ko ko waxee woon rek mu àttewu ca noona bu dee koo xam ne bii yoon la ñu ko ci deret te muy def noonu nee na ko gën gaa yàgg mënta weesu fukki fan ak juróom kon nay waññi bis yi nga xam ne ci la koy gis bañ a wañuwaale bis yam ko dul gis ba fan yooyu mat fukki fan ak juróom mbaa mu jeex bu dee koo xam ne gis na ko gisati ko dañ ko ne mu topp aadaam rek bu aada yoo wutee mu topp aadaam ca gën a bari fan bu dee def noonu kon nga xam ne tey mu gis deret ëllëg du ko gis na wàññi fan yi ba mu tolloog aadaam su jeexee baax na su jeexut mu yokk ca ñetti fan bu dee ko ëmb itam gis baax te baax bay dikkee noonu mooy tey mu gis ko ëllëg ko gisit dañ ko waxoon rek na àttewu ca noona di wàññi rek fan yi nga xam ci la koy dikkal ba mat dañ ko waxoon boo xam ne àgg nga te sa deret war a jeexee te jeexul rek jàppal ne jàngoro la ngay jullee koy woor mu bañ a fàtte itam ne ndegam moom tey deret ji dikk tey du dikk gis ba nga xam ne gisu ci deret moom day jàppee boppam ku tolluwul ci gis baax day sangu di julli di woor te mën naa jotee ka muy seel bépp fan boo xam deret di génnul rek àttaku tolluwul ci baax lay amee koo xam ne dañoo toppoon deretam ba ne ko sa baax jeex na lii di génn jàngoro la mu teg cee diir boo xam ne mat na fukki fan ak juróom muy gën jaanee yu làpp gannaaw ba la ne bu gisee ni deret ji mu génn ba tey waaye nag lii génn léegi kat mu réewut ak la daa génn ñu koy tudde jàngoro li ki mu gis ne couleur bi dafa soppiku mbaa xet ga daa soppiku wala deret ji dafa gën a far wala daa gën a ñàkk a far mu jàpp ne kon lii moom deret dëgg-dëgg la régal la daal di àtte boppam ku amee régal seet nag nañ ko waxoon ne ko say fan noonu la war a toll bu na tolloo tam gis ne deret ji delluwaat na mel na mu njëkkoon a mel te bañ ko jàppegul régal kon loola baax na nga daal di sangu jàpp ne ko lii génn dereti jàngoro la su waree jeex nag te teewut ni meloon ba mu jàppee ko deret bu mel noonu rek déey war na ci yokk ñetti fan maanaam fan yam daa am jeexal na ci yokk ñett bu ci yokkee ñett nag te jeexutut mu jàpp ne lépp rek jàngoro la sangu te jullee koy woor nga seetlu ne buñ toppee jigéen ba ne ko sa deret jeex na lii di génn jàngoro la te noonu mu ko gisee nag moru yi rek amul genn soppiku ku ko mën a xàmmee ci ni nga waxee léegi kon lu yàgg-yàgg dañu jàpp ne ci laab la nekk rek bu wéye woon noona da ko des ci dund it dañuy jàpp ne ci laab la nekk rek lay génn jàngoro la jigéen na muy xàmmee ne deretam jeex na benn muy jufóof te mooy jël li ñu waxoon léegi sagar mbaa wëttéen def ko ci bisawukaay ba xool te taqul dara mbaa boog mu gis ndox mu weex moo xam ne day nuru ndoxum ciment maanaam boo sottee woon ndox ci ciment na muy mel wala maniyu yooyu yaar lu mu ci gis rek tegtal la ci jeexu deretam waaye nag gis ndox mu weex mi moo gën a mën a tegtale jeexu deret moo tax looloo tax koo xam ne yoon yi mu gis deret yépp ndox mu weex moom lay gis ca ba muy jeex ak koo xam ne daa jaxasoo am na ci yoon yoo xam ne gis na ndox mu weex am na ci jamono yoo xam ne it gisul ndox mu weex mi day jël rek morso dugal ca sawukaay ba xool taqul deret nga xam ne kon soxul ca ne soxul ca ne ñooñu ñaar koo ci xam ne daa njëkk a gis ju foofu maanaam lu mu njëkk a gis ci boppam mooy bu dugalee morso ci sawukaayam xool du takk dara dañoo bëgg mu néggandiku ndox mu weex ma ba xam dana ko gisam déet waaye nag lu mu ko néggandiku néggandiku bu demee ba waxtu wañ taamu ca julli ga di bëgg a jeex nga xam ne sangu rek julli moo fa sës mbaa mu jeex bu gisul ndox mu weex ma itam na daldi sangu rek te daldi julli jigéen joo xam ne nag yi mu weesu yépp bu deretam daan jeex du gis benn yoon ndox mu weex moom daal jël morso def ca sawukaay ba xool taqul deret rek naka jekk mooy tegtalu jeexu deretam kooku moom bu defee noonu maanaam jël morso def ca sawukaay ba xool taqul dara rek di jar muy néggandiku ndox mu weex ndax moom mës a gis ndox mu weex moomu benn yoon kooku it bu gisee ndox mu weex ma ci dogalum yàlla te boobu yoon la ko njëkk a gis see ba mu daldi sangu fi saasa ndax nee na ndox mu weex mi moo gën a mën a wone jeexu deret ja kon du aajowoo muy xaar di jël ab morso di jugal ca sawukaay ba di xool ba xam taq na deretam taqul deret ak koo xam ne nag bi yoon la njëkk a gis deret maanaam bi yoon la njëkk a gis régal kooku moom su demee ba jël morso dugal ca sawukaay ba xool taqul dara rek du aajowoo muy xaar ndox mu weex say boo rek mu daldi sangu daldi julli